l'islam woni capanɗe joyi e jeenayi ziyara ceerno men ceerno mutoe ɗaha ceerno sanni mamudo juuroma caggal ko ɓiye ari ɗo salmingal e juurade ko jiɗɗo ari ɗo e juurade ma jaɓɓade hoɓɓe ma jaɓɓade hoɓɓe l'islam Ñoo iso puɗɗorɗa ɗum e konngol ngol ɓeydingo e haala e wolof an kala tula bi son excellence monsieur Macky Sall président de la république tàmbali na ko ci pulaar ñu firi ko ci wolof nana sax sunu mbokk yi mën dëgg li mu wax bu ñu paree loolu mu continuer ci wolof bi ma dëgg si si pulaar président nee na maa ngi sant yàlla di junni si sant bi Seydina Mouhamad maa ngi ñëw tey indi nuyoo waa Sénégal yëpp indi ñaan waa Sénégal yëpp ci fan koy indi fii ci Louga ci Thierno Mahamadoul Bachir mu tawalla Cheikh Oumar nga xam ne moo toog téléphone nee na en tant que président de la République loolu moo ñëw fii tey na nga xam tey sa soppe moo ñëw fii tey la bëgg moo fi ñëw tey na nga xam moo fi ñëw loolu cër la boo dama ko sant ci bi ko doonul président ba bi ko doonee président cër boobu nii nee na cinquante neuf édition juróom fukk ak juróom ñeenteelu édition ziyaara Mountakha Daha fii ma ñëw fii tey li ma fi indi nag mooy ñëw nag ganu dalaa say gan dalal la say gan yoo xam ni ganu lislaam lañu jóge fu nekk ci àddina bi wàcce ci si may doom di xarit di soppe di wëllëre di lépp ñëw nag fas yéene simb nag bu fi président bi ànd ak yow nag dalal gan yi gàtt tàggatal leen gunge leen ginnaaw bu ma nuyoo xaalis bi ziyaara ko sant ko bu baax ci taxawaayam ci lislaam rafet bi lool li nga xam ne noonu la yore xilaafa Cheikh Oumar Foutiyou Tall radiyallahu taala anhu nga xam ni Cheikh Oumar Foutiyou buñ koy wax faaw nekk wax bu yàgg ndax jaar-jaaram ak liggéey bu mu liggéeyal lislaam si liggéey bu mu liggéeyal nit ku ñëw Cheikh Umarul Fuutiyu buñ koy wax Fuuta la jógee waaw Fuutiyu Cheikh Umarul Fuutiyu liggéeyam ci lislaam ak ci xeexal lislaam jëm silaamal lislaam romb na Sénégal romb na Mali romb na Guinée romb na Tchad romb na Soudan romb na Égypte dem na ba Arabie Saoudite dem na ba Madinatul Munawwara kooku suñuy wax mbiram war nañu taxaw ci bés bi wane li mu defal islam ak li waral tey jii liggéey bu mag xam ne ñu jógee si sallallahu alayhi wa sallam wàcc bi ci Cheikh Ahmed Tidiane taala anhu di wàcc ba ci moom sa marul futiw mu wàcce waat ko mu roog ba ci suuf loolu moo andi ak Tijaaniya fii ci Afrique de l'Ouest comme noonu bu ñuy wax bësam te bësu doomam ah yaakaar naa ne askan war na ko xam ba waral suñu teewaay tam ba tey ñu koy nuyu di yëpp ak Cheikh Marul Futiw waaye di nuyu tam ahlu bayt rasul yi fi nekk ñëpp moom la ñu waroon njëkkee tudd leen ziar leen ci bés bi. bandiraɓe ɗum gaɗa république wi eɓe dutto eɓe jetta allah eɓe calmina ceerno mahamadoul bachir eɓe juuroɗum eɓe gari hadde noon yaltude e moƴƴere nde allah waɗi ɗo e galle cheikh omar o wi hen paam noon sotawi en mbi eɗen kaala gueɗe cheikh alhaji omar walla eɗen juppa e gueɗe cheikh alhaji omar ɗum wonata ko fam ɗum wonata ko fayi saabu kaalateɗo on fotiri ɗon cheikh alhaji omar ko liggigo e l'islam en tiiɗi o en tijani o yawti sénégal jaasi l'islam taggal rasulu ala ƴettuɗo jihad ona cheikh alhaji omar yehi suudan yeehi kamɓe yeehi nisér yeehi nigéria yeehi mali yeehi guine yeehi arabi saudi yeehi suna yeehi ha madinatul munawwara yeehi ha égypte yeehi ha rasulillahi ɗo belle cheikh mar yeehi ɗo ɗum noon on so tawi eɗen kaala haala makko wawa famɗude wawa raɓɓike o wi kanko président ceerno mahamadou bachir تبني سلكين تأجورا تبني جلبنا كان تبنا الاسم الشيخ العاج عمر يمتع بلو أمي نقود تشيركني توقف فعلا وأنت بسنا ولا جلو أولي كان أبي جلبنا تاجنا برسول الله إن دلنا وقام بطنو أدلال إجاكي إبالي بريزنتاشيو أو بسامي رون أو بجورو ɗan noon cheikh alhaji omar liggey makko e diine o liggey makko tijari o wona hunde famɗude so tawi haala makko arti hay ɗiyiko walla taariko o jooni ina waɗe eɗen jogi hebko kalde loolu weeso ala kulli anin il faut que mo nuyu ceerno madani on toɗa wax léegi ci turu ceerno bachir yooyu ko gërëm ko ci kàddu yu rafet mu yëkkati ak ci taxawaayam su ma ko nuyoo nuyu naa ay rakkam yëpp ci kër gi euh, maa ngi nuyu tam Thierno Nour di nuyu suñu rakk suñu xarit suñu sëriñ Thierno Cheikh Oumar Bachir Thierno Bachir di ko gërëm bu baax a baax ci taxawaayam ak ci liggéey si lislaam bi mu liggéey ci ndaw lislaam du ko doon bu baax di sant famille bi yëpp sans exception rawatina mag ñi ak ñi jógee Mali ñu jógee ci yeneen réew yi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar. طلبابي من أسهلنا شيخ محمد المداري ملتقى أحمد ملتقى والشيخ الحاج عمر الخادم الحضرة العمرية كل كل كل اتنوب الحالة ما يقوى حالي وكم محمد المداري e darde makko e am e darde makko e leydi ndi mbeɗa salminama ɗon mbeɗa juuro somi salmonimo mi salmoni dendagal tañiraɓe cheikh alhaji omar mi ƴetti salminano ɗum mi fawe jongo makko yo fettanamde goto wamdere o wi so ɗum yawti mbeɗa salmina ceerno nuuru mo cheikh oumar moutaga daha o wi so ɗum yawti mbeɗa salmina cheikh tidia cheikh omar cheikh tidiani murtaga ɗa ha joniɗo oɗo ko jiɗim luuru so ɗum yawti mbeɗa salmina miñam sehinam giɗam ceernam hol on cheikh omar mahamadou bachir o wi mbeɗa yettamo mbeɗa jarnomo mbeɗa weltonomo e golle moƴƴe ɗe gollata e nder leydi sénégal ɗe gollata e sénégal amariyano e nder gollatakke kondu cheikh alhaji oumar aw ibnida biye fouteur trafande balla o wi on mbeɗa heɓtinanama calminade e jetton e duwaw saabu yiide darde makko jeunesse o wawi jiiɓade hande ni o dani o dani omo fewnaɓe ha hen on ko yiita place mum anda ko woni anda ko yahata anda ko fewnere mbeɗa yettuma mbeɗa salminma mbeɗa juuma moye gana sore wona ko andi ak ziyaara doom bu ma bàyyi ci kër ga soxna Mariam wala mu ma koy laajaat fii ñu ko jottali ko nuyoom ak ziyaaraam ak vraiment di wane cofeel cofeelu doom ci waajuram cofeelu doom ci sëriñam taalibe ci sëriñam donc nit ñi ma ci am vraiment ñu dem ñu ñëw atiɓe jawtat ɓe haala kan kono noon mani addane salminano ɗiya sehilma sohna jam woni sohna mariam faysal hadema wiide mi ande mi nanani kalɗa haala wayde o kadi hadema namditaji no ɗum saabu mariam ko ɓiyiko ko sehil makko ɗum noon o addanma calminade makko e juurogol makko e ɗaɓɓude duwaw e gasgoyɗe maɗo nde allah renatama hen beneen musulman ginnaaw loolu dama bëgg a seeti Sénégal yëpp ak àdduna bi yëpp taxawaayu Thierno Bachir si li nga xam ne noonu la yoree xilaafa Cheikh Omar Foutiyou tey ci mbaax ak ci tax na di ko yàlla tegee ci bopp njaboot bi bu mu njëkk a wax muy képp kuy xalif ci kër Cheikh Oumar Foutiyou xalif sa wayjur jox naa la digal si nga toog liggéey sa kër wayjur tabax sa kër wayjur loolu mbaax rek moo ko mën ak yaatu ak nekk kilifa bu uuf ñëpp loolu nag ñu koy seede di ko ñaanal yàlla mu baax mu yaatu lool ànd ak wér continuer di uuf njaboot bi yëpp ɓeydaari so ɗum yawti miɗin jetta allah miɗin jetta ceerno mouhamadoul bachir mourtada ɗa ha cheikhuma omin komin jettatano ko noon woni ko dalil dalil o woni ceerno mouhamadoul bachir mourtada ɗa ha gila ñande allah joɗɗiɗima jabbere cheikh alhaji omar kala taanum cheikh omar yi hoore mum e jobbi ceerno bachir sabo o wi ko he gayegay goto mum fof kala ko bamma jagguno jaggudu kala ko bamma gollatno golla ɗum kala ko bamma fuɗɗuno yaadu ɗum mi duusuma hen mi duwanama hen mi walluma hen président wima ɗum ɗon keɗal e on haqqille e gulla nderako e ɗal wasde añande hay goto wawa wadde ɗum sonaba allah fewni mo allah moƴƴiri mo allah yiɗi yiɗani mo allah wandi jogii ɓernde laaɓde yiɗani hoore mum jam ko yiɗani hoore mum ko yiɗani ɗum ɓesgu mum ko ɗum tagi min jettuma heen min duwanama min beltinma ɗum ceerno julɓe ɓe ganda min jii ɗum min tigi ɗum baax si yéene bu mu man te mu ko ñaan yi moom mooy ñaanal ko ñaanal réew mi jamono ju nekk cofeel bi nga xam ne mu koy wane suñu diggante ba tax lu bëri lu ñuy song duñ ci am benn xel ñaar duñ ci am lenn loo xam ne dina nekk lu ñu jaaxal la lu dul lu ci yàlla subhanahu wa taala suñu borom kon loolu yéene boobu ak ñaan yooyu nekk si ñun ah, dañ koy ñaan suñu borom bi ñu ne tam ñu ñaan ko mu sàmmal na ko bu baax yokk ko wér-gu-yaram yokk ko kattan ba nga xam ne sumb bii suñu borom jox ko dina ko mun màttal bu yàggee yàgg ci kanamu askan maa ngi koy bu baax di ko gërëm di ko wax mu yokk ñaanal Sénégal jàmm ndax réew mi la réew la moo xam ne ah ñu bëri bëgg nañ fi ñëw liggéey. ndax Sénégal yàlla génn na fi lu bare si diir bi ñu fi nekk loolu nag ci kanam lay gën a fekk kon loolu dafa laaj dal wala jàmm euh, loolu mu ngi ñaan kilifa diine yëpp ñi nga xam ne ñu mel ni moom ñu ñaanal leen ndax yàlla yaatal jàmm boobu ak salaam boobu. président Macky Sall wi so ɗum yawti mbeɗa haala yiddini ceerno mahamadul bachir yiɗi e duwawu mo duwatton jamma e ñalawma suba kay e kiiɗo somi yi somi yiya o wi taki min président kala ko mbawmi naatde kala ko mbawmi ƴettude kala ko mbawmi yidde so mbeɗa naate hen mi sikkittako mi yeyta haɗata ɗum ko duwaw ko ceerno maɗo ɗum basiru duwantoɓe o mbeɗa tira ɗum mbeɗa yiya ɗum mbeɗa anda ɗum so tawi ala ko umɓe kuɗol allah ala ko cikkittoɓe hen walla ko jiyanɓe hen walla ko ɗamaniɓe hen sona yimɓe kuɗol allah ɗum tagi noon mbeɗa resnoma kadi hooram no ndesɗinɗoma nde hoore mbeɗa ñaagoma ya tuwonomi duwanɗa kiite o wi sabo buat hari ini allah ada jam ini leydi he allah adda deeƴal allah ada kawral allah adda ɗagodiral allah uddita ɓerɗe ɗe uddita haqqillaji ɗe feerde gite ɗe haɓe jiya ko allah waɗi ko ɓe ganda ko allah waɗi ɓe gaɗa ɗum ɓe gaddo hen ɓe mbiya fes so tawi jam tanya apa ini dia ene fodde ɗum ɗon ɓeɗin ñaago an ceerno mouhamadou bachir no duwaranta kam ni yo allah hokkan sagam minen e juulɓe ɓe pop minen ɓe dañi dotto dutto min tarti juuɗe min mbi allahumma ya an allah ndufitta ceerno mouhamadoul bachir ya renan amen ɗum wonda cellal wonda kisal wonda e balɗe allah addidamo e sago makko ko yiɗi timminde koye galle cheikh mara l'islam o allah timminana ɗum haw fo e litere ɗum kon wax ji mën nañ ko bañ a guddal ndax ku gis jataay bi fii di fi daje di ay sëtu Seydina Muhammad sallallahu wa sallam di njabootu Cheikh Oumar Foutiyou Tall di njabootu kilifa diine yi ci biir Sénégal day nuyu représentant xalifa général des di nuyu représentant xalifa di nuyu njabootu Fuuta yëpp fi teew Thierno Aliou Thiam mu wër Sodi Thierno Samba Sall bu Matam mboolem waa Boy Naaji mboolem këru diine ci Sénégal te ñu laa baabu Chapal ak kilifa yi nekk fii ci Louga di famille am Cheikh Mbaye ak mboolem ñi fi teew ku biir jotaay bi xam ni jotaayu lislaam la ñu ñaan yàlla rek bu mel nii di yaatu. ñu yàgg ci réew mi ñu ne en tant mooy jàppale diine loolu ñu ngi taxaw bu baax a baax ñu diine julli d'ailleurs comme diine chrétien moom ñu jàppale diine si kër yi si cité yi si jumaa nit ñi nañu toppatoo seen diine loolu yaakaar naa ne kuy wax xam na ni état bi ñu ngi ci dox a rëy kon loolu laa bëggoon wax di ko ziar wax di ziar fan di baalu àq nag si li nga xam ne xëy na adduma leen waroon leen tudd waaye di leen andil ziara Sénégal yëpp ci bés bu màgg bi allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. wax na ni le président li ñu kookal wax ko. o wi miɗin jetta dendagal juulɓe aɓɓe ɗo mbeɗa salmina من من السالمنا جامع الفا علي جام ورسول من السالمنا جامع محمد سامسا ماتا من السالمنا ريبريزانتا سري ملتقى بشير مات من السالمنا ريبريزانتا سيد ابو بكر ابن محمد المنصور الخليفه العام الطريقه التجاريه من السالمنا جامع محمد يحيى باب mbeɗa salmina denndaangal fuuta mi accaani hay gooto mbeɗa yaafno on e fonnodemi innude on gooto fof inde mum e yettoode mum ene jeya mbeɗa ñaago on heen yaafuya kala moni innaani ne ya anndu mi addi salminaanu population sénégal en tant que président de la république so addi salminaanu leydi ndi kamɓe sénégal naati hen mbeɗa yewo mon ɗon ko heddi ko état noon nana walla tiine o hoore président wi en tant que état laamu ngu inen walla tiine o eko feewi nan walla ɗum ene jumaade nani walla ɗum ene jamaade nani walla ɗum ene l'islam nani walla ɗum ene organisation aji goɗɗi darnoji taɓɓuji tiine o yaarude yeeso état nan jaggi heen nani waɗi hen participation makko jamma e ñalawma subaka kikiɗe ko ɗum état jii ɗum noon ko on état ko on dartini ko on kaalanen ko on jaanen ni e raɓɓiɗinde haalan tan ceerno ya anndu min beltima min ɗoyima min juundata haala ka e yaafnaade jonɗe ɗe e dental ngal no wayni omo salmina fof en omo salmina ceerno mamadou aissata khalifa galle cheikh adjuma omo juuro ɗum omo bismo ɗum omo weltano ɗum e o ay tawi ɗum o ko e yamirano ceerno bachir Omar Sall ɗiga kadi dendagal Fouta les éminakoɓe Fouta galleji tiɗi ɗi mukaddameɓe ɓe ahbab en ɓe joɓen zawayiji ɗi joɓen kolaɗe ɗe joɓen leydi ɗi joɓen joɓen guese ɗe joɓen gaynaka ka pop président yimɓe ɗaccani hay goto kala ko duuri ɗacce reedu hande ko tawata toon saabu o ɓeltima e yiyanɓe no Fouta teddinirimo no l'islam o jaɓɓorimo no sarifaɓe gari o juurima o juurima o werti juuri yorbo ɓe allah waɗa tan allah waɗa kawral allah waɗa ɓeydaare allah waɗa naataade haa jonta tan ko duuɓi garooji eɗen celli eɗen kisi alaa ko itte meɗen ko wonaa duuɓi allah hokka en ko dañaamo kadi pecceten ko enen taw en peccanta hay goota lottenta hay goota allah jogii allah waawi ko allah waɗat min waɗatma wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamina assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu